alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu imaam loo ñu ngi lay ziyaara di la ziyaara bu baax a baax a baax di la ñaana yàlla nga gudd fi lool nga gudd fan lool te wér euh, représentant xalif général fii ci tu ci Dakar sama xarit sama doomu ndey yàlla boole ñu dem ba fale Gabon fa Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool toog juróomi at man ak yow ñu toog ca makkaanam boobee moom Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool julli fa tàkkusaan wut fa ay xeer indaale Sénégal moo tax dama lay xoole comme sama ku ma bokkal ndey ak baay ndax diine bi moo jiitu lépp te jàmbaar nga ci ma teg ci la président Pape Diop di sama xarit yàlla xam na sama xarit la ñëpp xam nañ ko seytaane bari na doole lool mais yàlla xam na ne ay xarit lañu dama yéene ko lool nag na ma yéene président Macky Sall noonu laa ko yéenee ak le ministre l' ancien ministre d' état euh, euh, euh, déedéet kële déedéet l' ancien ministre d' état di Serigne Diop yàlla def ma booleek ñoom ñett ñuy sama xarit et donc maa ngi lay ñaanal yàlla ànd nag ak sama rakk sama xarit sama àndandoo muy le ministre euh, Ablaye Diouf Sarr di nit ku yàlla baaxe ci yar ak teggin di nitu jàmm réew mii lépp lu fi nit di wut te wutewoo ko jàmm dangay danga nekk ci ay erreur yàlla di def yal na yàlla def ba nga nekk ci siraatal mustaqim ni ko imam bi waxe sànq ay nit ci li ñu war a jàngat ci saaba Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam engagement ba mu mat ba mu mat wante nga boole ko yar ak teggin yëg doomu aadama wala xad karam naa bani aadama loolu la suñ borom tabaraka wa taala wax doomu aadama dafa dafa am fu ko yàlla teg moo tax lu leen mën a opposé it na ngeen ko def ci yar ak teggin jàppalante ne yéen ñëpp yéen a bokk destin commun ku ci ne da ngay dem uy ji sa borom ñun nag imaam euh, monsieur le représentant du khalife général euh, dañu ñëw euh, d'abord parce que bésu àjjuma li mu ko waxee bi mu koy jàng suratul juma xam nga ne bésu àjjuma moom bésu ñaan la bésu dellu ci sa borom la te dañu nekk ci euh, jamono joo xam ne ah nit moom euh, liggéeyal sa borom liggéeyal sa borom liggéeyal sa borom wante itam liggéeyal sa bopp ci ci àdduna be mu mel ni doo jóge ci àdduna loolu la ñu wax moo tax loolu dafa ànd nag ak sabablu wut li ñuy wut nag pour jëriñ askan wi dañ ko war a def ci njëkk ak tegiin dañ ko war a def ci respecter diine diine ci yàlla mooy islam ina diina inda allah al islam moom la suñ borom tabaraka wa taala wax ci alquranu karim moo tax lii ñuy wut yàlla boole leen ngeen daje fi yéen ñaar muy le président Pape Diop ak le ministre euh, Abdoulaye Diouf Sarr euh, yàlla def na yéen ñaar de man day duma yàlla day aar na ma ne man du ma naafeq dara jaralu ma naafeq ci àdduna sama deret moo ma ëppal balaa sama ngëm ñëw sax sama deret moo ma ëppal naafeq yal nañu yàlla musal ci naafeq yéen ñaar war ngeen a mën a lëkkaloo jàppante pour liggéeyal Sénégal rawatina Ndakaaru moo la fi ëpp expérience dem na ba yàlla may ko mu nekk fii lu ne ci réew mi macha allah ah liggéeyal Sénégal fii ci Ndakaaru lim fi def wax dëggu yàlla ñii di coow intermédiaire yii yëpp kenn tanewu la fi Pape Diop ah léegi nag kii ñëw nii ànd ak. ni nga ànde woon ak président Abdoulaye Wade kii tey moom la Macky Sall yàlla def ci teg ci ay loxoom doxalinu Sénégal muy président de la République loolu la yàlla bëgg moom la moom la nàmm moom la suñu imam bi sànq moom la wax yàlla borom kattan borom mën-mën borom sañ-sañ mooy jox ku ne quli allahuma malik mu tutil mulk man tachaaw moo ko jox Macky tey jii nga nekk ci wetam ngeen liggéeyal fi réew mi comme ni leen ko charte fondamentale santé liggéeyal askan wi engagement bu mat sëkk ngeen di ko def rawatina ci bésu jafe-jafe yi nga xam ne imaam moom la commencé mbas mi ak lu ni mel ak lépp luy yàqal doomu aadama jaamu yàlla suñ borom tabaaraka wa taala yal na ko fi yàlla jëlee. jëlee ko ci àdduna jëlee ko ci ñun suñ njaboot suñuy makaan ci réewu Sénégal réewu jullit yi ci àdduna yëpp yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def moo tax li nga ci taxaw yow itam ci wetu président de la république Sénégal yëpp amal nañ leen njukkal ndax li nga li la ci war yëpp jëf nga ko tey jii taxaw nga nag pour problème mu ndakaaru da nga koo seq nag ak say doomu ndey ak sa ñoo xam ne say naataango lañ yéen ñëpp respectons les règles du jeu fii Euh, wax am na ku fa wax sànq ne euh, juma mooy néegu néegu yàlla juma mooy néegu yàlla loo ciy wax nanga ko wax ci na nga ko wax ci njub ak jubale de nañ yàlla ñaan ñaan yàlla mu def jàmm ñaan boobu ngeen fi wut si yal na leen ko yàlla may te def jàmm ci réew mi réew mi jàmm rek a fi baax boo gisee li wër réew mi yëpp ay jafe-jafe nga fa mais yàlla ci mbaaxam barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool bërëb bii ñu toog bérébu jaamu yàlla la wante bérébu gëm ne sëñ Tuubaa Xaadim Rasool ku nekkal yàlla mu nekkal la ku nekkal yàlla yàlla nekkal la moo tax lu ci waay di def rek yal na rek jëfin bu rafet daal loolu laa doon wax ci turu euh, euh, Abdoulaye Diouf Sarr di sama rak monsieur ministre Pape Diop waxuma ci turam wante xam naa ne xam naa ne sama xarit la li may wax nii wóor na ma ne engagé na ko moom lu baax rek la bëgg moom itam wante euh, jot na nag la relève générationnelle xanaa rek ñu ñaan yàlla mu dikkee noonu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye ci kàddu gu rafet googu kon ñu jox kàddu gi monsieur euh, président Pape Diop. di nuyu jëwriñ El Hadj yu Faye di ko ñaan mu jotlil ma sama nuyoo Cheikh Mountakha mbake ñuy ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ay cëram euh, tey nag duma wax dara. man taalibe laa bu julli si taalibe sëriñ Touba bu ñëw julli si barab bi yàgg naa fi du tey li may wax rekk mooy mbay relève génération amul benn réew ci àddina bi kon du am Sénégal jërëjëf. mooy xayrul kalaami maa xalla wa dalla kon ñu déglu jëwriñ alxaaji mbakk yu fay mu jël kàddu gi. ndax moom ak Pape Diop ku ne xam na ni jënd jëmm lañu ñu ngi rafet lu teewaayu sëriñ Khadim Lo imam di rakk ci Serigne Bassirou ñu bokk Serigne Moustapha moom Serigne monsieur le ministre ñii Cheikh Mountakha mooy seen waajur mooy seen nijaay mooy seen waajur wu góor mooy seen waajur na seytaana rajim bismillahi rahmaani rahim euh, kon day ñoo ngi nuyoo di jiital imam ci nuyoo bi ak imam yi di dalal suñu gan yu tedd yii nga xam ni ñoo fi ñëw ci barab bi nga xam ni barab bi nga xam ni seen barab la ndaxte barabu lislaam la muy muy barab boo xam ne bii barabu barabub lislaam la di kërug yàlla sëriñ Touba ak njabootam tab defaral ko fi suñu boroom ngir xiir ñépp ci ñu jaamu yàlla te sëriñ Touba kat moo njaboote ñépp ku ko yëg ak ku ko yëgul ko ko nungu ak ku ko nungul ndax moo ko wax moo ko bind ni yàlla moom la dénk jaam yi du samay wax kon jaam bu ne bon sañ na kala yàlla dénk nga ñëw fi moom boo amee bëgg-bëgg nga gaaral ko ko ñaan ko sa bëgg boobu nga boobu yàlla faj ko mu mel ni nag nit ñi dañuy jàpp ni benn bëgg-bëgg bu ko jópp di wut ñu ni kenn rekk a ko mën a am yàlla xarañteem ak man-manam ak kattanam weesu na foofu ndax yàlla li muy def yàlla rekk a ko man keneen ku dul yàlla mënu ko yàlla moomu nag mën nañ koo tàllal suñuy loxo ku ci ne la nga bëgg lu ne yàlla defal la ko ndaxte ñun ñii ñépp imaama ne woon ci suñu kanam sànk ba muy wax ñun ñépp la yóbbaale ba mu gërëmee yàlla sant yàlla tagg yàlla dafa ni ko ihdina siraatal mustaqim kon ñun ñépp ñoo bokk bëgg-bëgg boobu te moom mii moo ñu ko ñaanal ñu nekk ci ginnaawam ba mu noppee ñun ñépp ñu ni amiin kon nunguk san mën naa law ñépp ba ku ci ne la nga bëgg lu ne ak la gën ca yow nag yàlla defal la ko suñu xal dal na ndax kàddu yii fi jëpp tàmbalee ci Mbay Njaay e, di moom suñu mbokk taalibe bu baax la ndax nit day wax te yàlla rekk tax te di nga toll foo xam ni wax dëgg yàlla bu fekkee ne dangay wax te li ngay wax newul ci sa biir xol e, yow yaay jëkk jéppi sa bopp yàlla jëppi la wala yonsu billaahi ku baax ku ne jëppi la waaye moom day wax dëgg yàlla buy wax ba tudd sëriñ Touba day dugg ci sama xol ndax xam naa ni xolom la koy waxee waaw suñu mbokku taalibi la ñoo ngi lay sant ci wax yu rafet yi nga wax jëmale ko ci ñun ñii jëmale ko ci réew mi jëmale ko ci président Pape Diop jëmale ko tamit ci mbooloom yëpp ma leen di xamal ni yéen ñii fi daje du hasard benn famille la benn famille la ci pas-pas benn famille la tamit ci option politique ndaxte yéen ñii ñëpp yenn bokkoon ku leen yar ku leen tette ba kii nga xam ni moo jiite réew mi ñu koy wax le président Macky Sall yéen a bokkoon bu fekk noonu dañu ni professeur bu leen jàngal professeur boobu muy président Abdoulaye Wade jumaa jii nag mën na ko seede moom président Abdoulaye Wade ndaxte le 27 septembre 2019 néeg bee lu bari xew na ci réew mi ba àddina bi yëpp gisandoo ko te ci ñaar ñooñu la xew muy président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade ñu am yaakaar lool nag ci réew mi seen famille boobu yàlla na leen yàlla gindee ko ngeen gindee ko ndaxte réew mi am nañu yaakaar ci yéen li ngeen di wut nag yàlla moo ko yor man yoruma ko imaam yoru ko waaye fii ngeen ko yaakaare yaakaaru na lool muy fii masalikul jinaan masalikul jinaan boobu Pape Diop mii li xew fii ku dul man du Ablaye Wade mënula koo nettali ak moom mi la ci pakk bi li ci tabax bi ak nañu def ba mu ñëw ba tey ji kon yéen benn ngeen te booba kii seen kilifa di président Macky Sall moo nekk ci tetu gouvernement bi booba réew mi ñeenti nit rek a fi ne yor réew mi yëpp jekkuñu muy Ablaye Wade Pape Diop Macky Sall ak Idrissa Seck kon fami ngeen famille boobu nag yàlla na yàlla def ci kàttanam ci se ci coobareem ndax réew mi am nañu ci yéen yaakaar yal na leen yàlla gindeekoo ngeen gindeeku liggéeyal réew mi ngeen xam ni doo leen opposition opposition mooy ñaar ñu bokk lu ñu bëggul lu ñu lu ñu lu ñuy numu tëdd yéen li ngeen bëgg lépp benn la mooy réew mi jag te loolu kat diine la nit bu dëkkee cim réew bala moo tal diineem day tal jàmmam te nag lii ngeen di def ku ci nekk jàpp ni sama gis-gis bii daal mooy la nga xam ne lii moo gën ci réew mi ñooñu dara opposé wu leen xanaa kañ dañoo am benn bëgg-bëgg ku ne ni maa li maa ciy jëkk sa morom muy réew mi loolu ngeen bëgg nag yàlla na leen ko yàlla defal yàlla tëlewul dara yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal eh, yéen ñii doo leen niti fitna te fitna baaxul nit lu muy wut te di ko wute fitna na jàpp ni bu ko amee tamit fitna ji du ko tàggook moom ba ba mu koy ñàkk te réew mii dafa am loo xam ne lii moo ko fonde ci fondation bi la ne muy ñu baax ñoo xam ne ñii ñoo fi ne woon rawatina suñu jàmbaar ji di xaadimu rasuul nga xam ne li mu wax ci réew mi ba mu koy wax booba nopp mënul woon a daloo loolu xel mënu koo gëm bi muy wax loolu ci réew mi nopp mënu koo daloo xel mënu koo gëm jëlale naa bët di ci tegu te lépp ñoo ngi ci teg suñu bët muy loo xam ne lii fonde nañ ko réew mi wodde nañ ko réew mi am nañu ci yaakaar ci réew mi réew moomu ñu bokk nag kenn ku ci nekk jóg di wax ne dama ko bëgg a jàpp bëgg koo liggéey ba ñi nga xam ne ñoo ko dëkke muy askan wi yàlla ameliore seen condition de vie loolu daanaka mën nañ ko tëkkale ak diine ndaxte diine kat bëggul lu dul doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf am jàmm rawatina nag. ñun ñi nga xam ne ñii ay jullit lañu kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen dénk rek di dénk suñu bopp xam ni dañuy faral di wax ni sa te doo leen ni noon sax ay mbokk ngeen ay xarit ngeen sa xaritu tey mooy sa mutari ca loolu fi politique la te nag politique bu ci valeur génnee tuddatul politique te yéen ñii fi nekk ay homme de valeur ngeen te liy xew suba yàlla rek moo ko xam man xaw ma ko keneen xamu ko li xew sa suba kumpa la te yàlla léppam li ci ëpp kumpa la xanaa ñi nga xam ne ñii ay xejjam lañu déey na leen te ba leen déeyet dañuy wax patt ragal jàpp ni sax balaa loola sax sans borom soppi ko ndax moo ni mën naa bind lii ba mu sopp ma ma wëlbati ko def leneen kon bon ñun ñëpp benn lañu. Cheikh Mouhamadul taxaa ku ne xam na li mu bëgg ci réew mi muy jàmm ak dal ndaxte réew mi kenn mënu ko yàq bi réew mi toll tolof tolof ku ne xam na role bi mu ci joué ba tey jii tamit yéen ñëpp ñëpp ak njabootam ngeen ay doomam ngeen ay taalibeem ngeen ay mbokki citoyen ngeen ba pare ay mbokki sénégalais ngeen bu sañoon réew mii nga xam ne ñoo ko bokk jàmm rekk fi am ñu nga leen di ñaanal di leen sant di leen yóbbante ci seen kilifa gi nga xam ni muy le président Macky Sall Mbaye di ko gërëm di ko sant di ko wax li mu bëgg ci réew mi moo ko xam yal na ko yàlla defal yal na jig réew mi yal nañu ñu jig bu ñu jigee tamit ñun yal nañ ko jig président Pape Diop yow it ñoo ngi lay wax loolu xam nañu sa xol xam nañu fi nga toll ci réew mi yal na nga jig réew mi réew mi tamit yal nañ la jig ñu àndandoo ñun ñëpp tàllal suñuy loxo yàlla mi nga xam ni subhanahu wa lu ko neex def mu defal ñu li gën te li gën kat kenn xamu ko yàlla rek ko xam. te kat yàlla bu indee ay dogalam ba def li gën ku dox tuuti di nga xam ne yii ndekete lii moo gën <laughs> bër ki dem dama romb ñaari caravane man ni sama chauffeur waa mbay mu ne waa man ko mbay man nii laa doon def <laughs> mun ma nijaay daan nga def lu ëpp lii man ko waaye mbay man ko mbay lu tax booba jàppoo ma ni ma nijaay li ngay def lu mu doon nii <laughs> ah. kon dañ leen a yërëm di leen ñaanal réew mi munu leen a fay réew mi mënu leen a fay ndax liggéey sa alal ba mu lew la nga jël ko di ko dépenser amatooy nelaw amutoo bëccëg amatoo guddi 4 heures du matin 2 heures du matin 6 heures du matin ngir rek askan wi jag loolu na jàpp ni jaamu yàlla la na ko nag yéenente bu rafet rax koo xam ni kii yàlla tudd na ni bu subaa xàpp gi yow lañ koy tàggal naka la ko sa moroom yéene bu ko defee yàlla ci borom dogal yi cër yi mu yore bari na lool bari goo xam ne gii ku ci ne mën ngaa am ba mu des loo xam ne lii daanaka doomu aadama yëpp ku ci ne yàlla mën na laa teral maa ngi leen di sant di leen sant ci turu sëriñ bi di leen sant ci turu imam di leen sant ci turu suñu mbokk taalibe yi di leen sant ci mbiru jullit yëpp yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko te moo mën a joxe moo mën a séddale ku ci ne la nga bëgg ci sa biir xol la ca gën yal na la ko yàlla defal ci barke borom Touba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jox imaamu